audio bi de bëgguma ci woon tontu sax. man de waaye dama cee mënut a ñàkk a ma tontu ndax ki nga wax dafa wax ne ma Cheikh yàlla bokk xam naa ne ko bokk ak bu fekkee nii la lay bokk ak moom fenn sëñ musiba la waaw bi mooy dafa wax wax bi bëri yoo xamante ne maanaam amul. man liy problème bi mooy Cheikh Thioro dafa dévier xalifa bi Cheikh Thioro dafa te kenn du la indil benn vidéo wala benn audio bu Cheikh Thioro dévier benn ne kaa lañ def lii wala ñëw ñu def li Touba maanaam politique bu Touba daal ci leen dong ngeen ko bëgg a teg mooy di jébali si rek ak a jaxase di jaxase nit diw doo murit diw doo nangam diw fonko kilifa def nga nag gis nga kilifa gi ku ko fonk doo ko tàqale ak kenn ku fonk kilifa gi doo ko jéem a jaxase ak kenn bàyyi leen seen caaxaan yi ngeen nekk Cheikh Thioro ci dëkk bi la dëkk di taalibu Sëriñ Tuubaa dégg naa nga wax ma ne waaw mënut a mujj li fa dëkk Cheikh Thioro de moom Sëriñ Tuubaa mii nga xamante ne ñun ñëpp moom lañ topp yaakaar ko maamam sëñ Cheikh Absa moom Sëriñ Tuubaa bokk benn waaye kon nag yéen. danga ne bëgg a tàqale waaye sëñ Tuubaa sëñ Seex Absa tàqale ko parce ñoo bokk benn waajur muy Maam Mor Anta Sali kon nag li ma bëgg mooy ngeen bàyyi seen caaxaan bu ngeen dee politique ngeen jël seen responsabilité wane na da ngeen di politique te bàyyi sëriñ si ngeen jël di ko làqatoo ngir bëgg a faagaagal nit loolu kenn du ko nangu sëñ bi parce que li problème bi mooy nit ci dëkk bi la ñu nekk ba pare nekk ay taalibe sëriñ Tuubaa nag gëm sëriñ Tuubaa nag ba pare nag sëriñ Tuubaa gi nag yooxuñ jët dañ ciy lañ ko def kon nag kuy politique ku nekk nga faral nit bul nëbbatu wane sa responsable ne diw laa faral ba a nekk di làqatu ci seen di taqal ay nit naan diw lii laak diw nangam laak diw gëmul suñu joo te ki ngay wax naan gëmul suñu joo mosoo digg fenn fu mu mas a waxee wax benn wax boo xam ne xot luy war may tubaab wala mu wax benn wax boo xam ne ku ko dégg da naan kii kat dafa yëpp sëriñ kon nag li ma bëgg mooy ngeen politique seen politique di génn ci sëriñ wóolu sa bopp nag ci jiw politique bi ne nit ñi safoo wuñ la bëgguñ la amuñ ci yow soxla nag nga dem tool yi nan nag te bàyyi ñu nit ñi safoo te bëgg leen dégg naa nga nangam lii da koo dabak affaire nangam baadoola laak di tàng wax wax loo nekk gis nga yooyu di ko wax li nga natt sa bopp ak li nga foog sa bopp rek noonu nga jël di ko ngay wax ni Cheikh nekk fa te dépassé dafa wax wax lu rafet tey rafetal parce que lu rafet rek moo am tey Cheikh Thioro du yilif dëkk beeg nangam na nangam dafa am loo xamante ne ab taalibe bi Serigne Touba dafa warul taxaw sa di ko wax ndax Serigne Touba képp dëkk bii dafay nekk ay mbokkam ñu mu bokkal maam maaram ñu nekk fii ci dëkk bi sëñ Mountakha jox leen cër fonk leen lool tey boo demoon sëñ Mountakha da nga fa fekk mbàkk mbàkk wax ne kër gu ne la jógee ndax dafa jël ñëpp yamal leen waaye yéen ngeen ay taalibe bi day dong kese bëgg a tàqale naan diw mun da yilif Touba dama na leen ñi nga xamante ne Serigne Touba jur seen baay ci ñi leef dëkk bi ci la ñu bokk ndax Serigne Mountakha lu ñu def lu nekk te leen woolu waxtaan ak ñoom waaw ay Cheikh da yëlif Touba bàyyi mun da yëlif Touba loolu yéen koy wax de waaye sang si nga xamante ne ñoom ak ñoom ñoo bokk benn deret dañ ko wax mukk te lii rek ngeen fi nekkee jaxase rek jaxase kese waaw nit ki nag boo ko bañee nag lu ne mën nga koo tuumaal waaye bañ nit ki di ko tuumaal lu nekk taxul ñëpp teg ko tuuma bañ ngeen ko de waaye ñu ko bëgg a ëpp mënoo leen ci dara dara mënoo leen ko ci da solo di sonal seen bopp rek waaw li dagg seen xoolee nag moom du Seex Coro moo ko def mi yàllaa ko def wasalaamaaleykum wa rahmatullah